te mën naa tontu boppam mën na giite ngaas mën na xeex kon ngalawaay seppi leen ba ci teg fële du tee man li ma bëgg a wax ci réew mi du tee sama gis-gis ma wax ko bu la neexee nga ànd ci bu la neexee nga bañ ci ànd c'est votre droit le plus absolu mais liy yoon bàyyil nit ki mu wax li mu xalaat parce que yow ni nga téye sa làmmiñ na yow d'accord ak sama xalaat ni d'accord sama xalaat ma nangul la ko nangul keneen am beneen xalaat bu wuteeg yow boo nekkee nit nag laa wax dama réew mi nag nit ak nite moo fi jafe in fiiroo rek nga ne duma dëmm ku moom xar mi nga bàyyi buum bi non am na fu ma xar waaye dama lay wax mais benn question scam man bàyyi naa ci donc affaire non non que maa bëgg a pare ci yow. man bu kaw mais mais man kay ba nga pare ci man nga xamee ni man man ak yow ñëw juboo ci ay kaddu maanaam man damay xeex li may xeex. Macky Sall lay xeexal. ak ku may xeexal. da nga siy ne message ma. da nga siy ne message ma sama message man dinaa la tontu. non non message bi wala njëkkee woon na yaa njëkkee saa ngay. gis naa ko si yàlla yow yaa njëkk saa yi nga ne ma doole. waaw ah, baax na day dégg nga woon naa ci yow. da ngay jaay doole rek ñu dem. ñu dem samay doom man pare woon naa ci yow samay doom ak sama. No battery, please charge. ma ko fenn dama lay ñaan nga supprimer naa ci yow. la xaw ma la xaw ma fan nga dëkk sama sama kàddu génneel la dama koy ñaan yàlla tax mais pare naa ci yow dootuma xoolati say laaj bay ñëw dugg say mbir. pare naa ci yow du question ragal wala question. non du jëli avocat ak ay yooyu noonu yooyu jaarul yoon. ah waaw ba nga responsabilité nga rek magum jëmm nga responsabilité nga kay. yow assumer rek. dama lay dama wax rek. assumer man bëgguma si dugg. assumer sa responsabilité yooyu noonu xam da nga yow yow yu gudd la. lenn rek laa lay ñaan. waaw mais man nee naa la man assumer man man sëriñ laa amal problème. xaw ma sëriñ la xaw laa amal problème ku la neex man xaw naa ji. wax ji. waaw léegi nag rek laa la a wax. maa ngi lay jégalu di la ñaan nga dindi affaire après nag yu la des yow yaa lu la nekk def ko. waaw man moom. baax na maa ngi nii maa ngi nii di dem sama la anyway. parce que am naa droit man yaakaar naa am naa droit ci réew mi quoi maanaam di jékki-jékki rek yéen taalibe yi li ngeen bëgg dafa yomb leen neex rek ne dama lay lii te ñu ngi gis ay nit ñuy pàndal ay nit ci réew mi te du mujj fenn. waaw kenn du sëriñ si borom jullit laa ni yow masuma gaañ nit waxuma laa rey masuma xeexal nit waxuma laa rey laa nga doon nga da ngay jël goon nga dóor lii loolu rek lañ taxawee non non dama ni dama ni dama ni ku fi ñëw naan da ngay reyaate dama lay dóor goon man loolu laa man li ma wax assurément taalibe bu ma ci jege taalibe bu ma fi fekk si bu ma fekk si naan ma yow nii ki naan lu tax nga wax sama lii ma dóor la goon loolu kay maa ko waxaat naa ko tey waxaat naa ko taalibe boobu waaye déglu te pourtant taalibe boobu ñëwul pour ray la dafay ñëw pour wax ak yow. non non mais da nga koy dóor. non non taalibe yi dañuy dóoraata de yéen taalibe yi da ngay def. yow neewoo ma dinaa la yow waxoo ma dinaa la dinañ la rey da nga ni ma sax dinañ la rey jox la gaynde ñu lekk. c'est-à-dire que ñaata sénégalais ngeen rey yéen yéen ñaata sénégalais ngeen rey. ah mais yaa ko wax mais yaa ko wax. léegi nag moo tax man démb jox nañ ma man samay mbokk jox nañ ma Aga samay man mënatuma ci dara sama xeen di saay naruma ko woon topp mais ñoom ñoo ma demal jëlal dig waxtaan ak ñoom indil ma problème bi ne ma dem ma dem defi ko procuration moom laay dem defi nii maa ngi nii aéroport di dem. waaye baal na sedd maa la ko ñaan de yàlla tax. ngir yàlla mais non non da ngeen damay supprimer sa numéro supprimer lépp. waaw ma mënee seetaan ma seetaan. amul problème su ma mënoon ma lii. amul problème si say wax. amul problème mais dama lay ñaan ngir yàlla bàyyi mu sedd. dama la amul problème non non di ngeen arrêté yéen taalibe yi di ngeen arrêté li ngeen ñu def. naan da ngeen ñu rëy yàlla. parce que Mawlaa Cheikh Ibrahima man sa mbir yàlla. Mawlaa Cheikh Ibrahima ko si yàlla bu mën na la waxatee say wax mais dama lay ñaan supprimer photo bi dama la ko ñaan te yàlla tax. non déglu ma rek. non non yow da nga ni du sa yow da nga ni du sa photo yow da nga ni du sa photo da nga ni sa. xarit waaw déedéet loolu yëpp ci ay affaire yu nii dina woon. mais lenn rek laa la mën a wax dama lay ñaan da ngay jullit nga ma lay ñaan de yàlla tax. waaw ma baax.